dogal bi jël nañ ko ngir daal di dem ci gerew ba journée morte maanaam duñu dem ca l'école ya ngir naqarlu ay ponk yu bëri te wuute. dafa am ay poñ yu am importance yoo xam ni boobu ba état bi gouvernement bi mëtale wu. ya nga xam ne dañu waxoon ni bala ñu cay egg ñu régler problème yooyu date yooyu dañ ko dépassé très largement beneen aspect bi moom mooy lan gis ngeen ni daaw depuis daaw dafa bare suñu ay ñoñ ay élèves yoo xam ne dañ leen jàpp. i revendication yoo xamante ni ñoom ñooy tamit yu waa US Union des enseignants du moyen secondaire fii ci biir réew bu Sénégal ñoo xamante ni ñoom ñëw nañu tamit dugg ci bile xeex ngir dooleel CUSEMS ak SAEMS mu doon benn pàkk ñaari boor. ñun dañu gis suñu bopp si ñoom lu ñuy revendiquer ci gis suñu bopp moo tax ñu ne nañ leen soutenir. ministère bi yor wàllum éducation ci biir réew bu Sénégal génnee bataaxal ñu jàpp nañ dafa jóg ngir xoqatal leen ndax ci boobu lépp not mën nañ cee daal di ràññi gouvernement bi daal di xam ne ni bu mayul daañu dellu ginnaaw ci accord yi nga xam ne xaatim nañ ko te mu nekk ci xaalis Sénégal ñaari téeméer ak juróom fukki milliards ci suñu ay koppar bu fekkente ni tënk wuñu ak accord yi ñu deloon muy taxawaay boo xamante ni enseignant yi le naqarlu nañu ko. bu responsable boo xam ne yow ñi nga xam ne yaa leen jiital déposé nañu préavis de grève ndax dafa am lu leen métti lu ñu bëgg a améliorer ci système bi. moo doon nga wooleel pour au moins nga xam lu ñuy ñaxtu lan pour xool noo ko mën a saafara. gouvernement bi au lieu que mu répondre ci question yi nga xam ni yii ñun moom lañ ko posé mu nekk di ñu di ñu attaque ak di ñu di ñu menacé. bëgg nguur gi xam ni en réalité. du loolu moom moo ñuy tax a jëflante diggante enseignants yi ak seen ministre tutelle ca bopp ba Cheikh Oumar Anne indi na réeroo laata juboo wala sax déggoo di am talaata bi li njàng du am ndax jàngalekat yu CUSEMS SAEMS ak US duñu dem ca lekkool ya